asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag maa ngi biir comité sénégalais des droits de l'homme loolu nag suñ ko waxee mooy comité bi saytu ak yelleefu doomu aadama yi ki ko jiite di la maire maître Pape Sène maire commune Ndondol di suma maire commune parce que commune Ndondol laa dëkk tey nag li fi indi mooy maanaam dafa invité ñi nga xam ne ni ñoom ñooy les jeunes yi nga xam ne ñoom ñu dëkk foofu maanaam ndogu fi nga xam ne moom mooy ci comité bi fas yéenee ndogoo ndo ak ñoom waxtaan ak ñoom waaye ci biir loolu tamit bu leen fàtte li nga xam ne nii ñoom ñooy ay soppe Babacar di ngeen leen fi gis parce que ñoom itam dañuy dund làmb bëgg Babacar moo tax bi sama maire wootee lii bi ñu ko yëgee ñoom tamit ñu sol seen dal ne dañuy ñëw di ngeen leen fi gis kon di ngeen déglu daal maître Pape dinañ ko laaj ay question ci lan ci commune Ndondol nu muy doxe parce que ñu ngi fay dégg ab stade municipal ñu ngi fay dégg li nga xam ne moom mooy route am na ay jafe-jafe yoo xam ne am na ci commune bi ci côté ndox mi ak yeneen yoo xam ne nii il fale que ñun ñu laaj ko ci ay question mu tontu ci su ko defee yéen ñuy suivre waaye tamit du mën a ñàkk làmb ji ci lay bokk parce que ñun faw rek fu ñu mën a dem faw ñu dugal làmb ci biir parce que loolu moom lañ ñu xamee cent pour cent làmb den leen rek comme ni ngeen ko xamee le 9 juin drapeau ma Macoumba Diouf lat Latmingué Franc ak Tyson 2 Mama Lamine Garga 2 ak yeneen i combat yoo xam ne ci bés boobu lay aju mais yàgg maar nañ dem ndogu ba pare après ñu doog a mën a ñëw wax parce que buñ ndogoo ba pare après ci la ñu gën a mën a waxtaan quoi. foog naa ne bu ñu xamee tey kii di maître Pape Sène c'est grâce à grand Babacar euh, ñu muy gën a yëngu nag ci làmb ñu defoon benn association tuddee ko ko en son nom que travail bu muy def moom tamit vraiment c'est remarquable ñu war ko wax te comme nous sommes des passionnés de la lutte tamit noonu rek la mënoon demee euh, grand wax na ko léegi nii. amoon nañ tête ak kii di euh, maître Pape Sène man jour boobu noonu laa ko xam personnellement euh, mu nekk tamit ku ouvert euh, nee na léegi il abat un travail remarquable may dellu si di ko confirmer parce que maa ngi déglu léegi nii kàddu yi nga xam ne ne góor gi yëkkati na ko je pense que développement localité ci lu muy njëkk a jaar mooy éducation et la santé. monsieur ak kilifa yi nga xamante ñoo fi teew mais aussi surtout la jeunesse. man maa ngi tudd Moussa Gueye monsieur le maire se représente comme étant de la commune man moom Ndiédiène laay féete te sama kàddu yi nag dama koy tënk ci ñetti ñetti pàcc pàcc bu njëkk bi mooy constat général monsieur le maire defal na leen constat mais constat bi mu def jàpp leen ne constat pratiquement les grandes réalisations année ña année année yu ñu nekk la mais j'aimerais que fii ak ay fan mu def constat boo xamante ni dafay dalee depuis mandaa bi ba mu dalee ba léegi mu defal ñu ko point par point ñu partagé ko ak jeunesse yi ba boo leen amee koo leen jàkkaarlooti bu neetee def defu fi lii nga ne ko lii kañ lañ ko fi def bu boobaa dootul am leneen lu muy wax te poñ yooyu vraiment monsieur le maire bëgg naa ak sa équipe nga defal ko jeunesse bi pour ñu mën a jàkkaarloog ñi ñuy ñi ñi ñi ñuy ñi ñuy jànkonte naa yàgg maar dégg nga li wax président Grand Laye ñoom Cédric Pablo ba ci Pape Ndiaye médecin euh, dama lay nuyuwaat rek di mel ni ki tey moom nekkoon na bés boo xam ne nii faral nga di ko def mais bu tey bi de defe naa dafa gën a yaatoo par rapport ak li ñu fi dégg ci ay nit yoo xam ne tey ñoom ñooy doomu Ndondol nga invité woon leen fii seqoon ak ñoom dogu si weeru kor yi di la wax baal ñu a si weeru saru bi. waaw jërëjëf Babacar <clears throat> bon baal nañ leen àq di leen balu àq euh, li ñu def nii tey euh, dañu koy sant yàlla moom laa wax bi ñu koy ubbi parce que dañ ko dooroon at yi passé euh, yàlla suñu borom may ñu chaque année aussi ñu di ko mun di def mooy lan mooy ci weeru koor damay dajale ndaw yi nga xam ne dañoo ànd ak man ci wàllu politique ñu bokk parti wala boog ñu bokk ci coalition bi nga xam ne président Macky Sall moo ko jiite wala ñu nekk ay sympathisants duñu politique waaye nag am nañ cofeel ci man donc ñu def benn ndogu boo xam ne nii bu weesoo li ñu fi xewloo dañuy toog waxtaan ci suñu dëkk man mi nga xam ne man la yàlla jiital ma wax leen at mi ñu nekk liñ ci nam ma def ak at yi ñu jëm lan lañ ci bëgg a def bu ñu paree ci loolu nag kenn ku nekk ñi war a jël kàddu jël laaj lu ñu xamuloon ñi bëggoon a def contribution def contribution ainsi de suite ci loolu la ñuy def def nañ ko tey gis nga yàlla suñu borom may ñu mu nekk réussite bu mag ma ci santaat suñu borom di ci sant jeunesse cadre cadre <clears throat> unitaire bu euh, jeunesse euh, benn Bokk Yaakaar bu ndondol bu baax ak responsable yi ko àndoon ak ñun ñëpp yow mii xëy na yëfu journaliste ci nga nekk waaye nag sama wëllëre nga tey xam naa ne tey liggéey boobu buñ ci tolloo fii jàpp nga ci mais li ci gë li ma ci gën a neex mooy bu weesoo doomu ndondol yi fi daje mais dañu am ay gan ñoo xam ne nii jàpp naa ne tey ay gan ñu ñu ma fonk la muy cent pour cent Babacar ñoo xam ne nii dañu jël seen bopp ah Babacar defalu leen dara dundalu leen yàlla suñ borom mooy jël doomu aadama mu gis moromam am ci moom cofeel téye ko te jàpp naa ne ñoom li ñu nekk dëggu na parce que nag wax nañ ko ñëw nañ fi boobaak léegi bari na su doon gistal duma leen fi gisaat mais ñii jàpp naa ne li ñuy wax nekk na ci ñoom te dama wax léegi ci njëlbeen ne ku la jàpp ñun la jàpp parce que doomu ndondol nga mais ku la bàyyi it la bàyyi kon ñoom ñun la ñu téye à travers yow ñun la donc yàlla suñu borom dogal également ñenn ci ñoom ñi ci bari ñëpp bu ma doon bu ma bañul ne ñoom ñëpp ñu am cofeel ci man cofeel googu ñaar moo ko waral cofeel bi benn la ci yow la parce que yow la ñu jàpp xam la beneen bi aussi am na ñoo xam ne xëy na dañ ma gis rek am cofeel ci man te yàlla tax mais loolu yëpp dafa bokk daje kon dañ ciy dollee sant yàlla bu baax ma leen di sant bu baax di leen gërëm vraiment tey pour man mu recevoir leen fii rawatina nag ñu bokk ak doomi ndondol parce que xëj na am na lu ñu doon gis ci man xëj na am na loo leen di wax ci man xëj na am na lu ñu foog ci man mais tey am na ñu firnde ci yu bari parce que ay doomu ndondol la fi daje te eh, wax na ko léegi Pape Ndiaye wax na ko léegi man dama ciy dolli xam nga bu ñu la dénkee su fekkee lañu la sant xëj na defoo ko wala defe nga ko anam boo xam ne ni am na looy nëbb doo woote lu wér nga wax mais dama jàpp ne bu fekkee defoo dara boo wootee it boowee nit ñi duñu ñu ñëw kooku moom ñaar yooyu fi am nit ñi kenn moomatu leen kon dañuy sant yàlla a ah, ba ñu jàppee ne kat am na lu ñu def te lu ñu mënit yàlla ak nit ñee tax ak xëñ na suñu yéene ñu woo nit ñi ñu wuyu suñu tey ba ñu am gan ñu tedd ñii ñoo xame ne que nii wax dëgg yàlla wax naa ci li ma ci wax ci seen kii la ca des mooy euh, loolu moom wax dëgg yàlla en tout cas daal euh, dama leen di wax ne leen am naa yëg-yëg bu baax ci seen taxawaay ci sama wet ak seen taxawaay ci Babacar ah lu ma man ci sama kéemtalaay kàttan nag di laa leen ko jàppale donte donte sama loxo mu ngi fëpp loolu yàllaa ko dogal mais nag ni sama loxo nekkee fëpp moom la war a mën a jote ci yéen parce que li ngeen di def dafa leloon ko seen bopp ma jàpp ne kuy def social di développer le culte de la solidarité sa bopp taxulaa jóg te ñun li ñu yor di ko jëmale ci askan wi defuñu ko ci nit benn nit ci askan wi lañ koy def général yéen ñi ñëpp kenn ku ne tey da lem sa intérêt teg ko fële xool intérêt li ñëpp bokk maanaam mooy tey yow fas yéene ngaa génne ci sa poos def parce que la ngay def daa am ku mu war a jëriñ koo xam ne nii xëj na buñ ko bàyyee mën naa sooxee loolu mooy solidarité dimbale wante te defe naa ne tey modèle boobu bu ñu ko copié woon ci suñu société bii wallaay la azim parce que dinañu lu bari danañ ko xeex lu bari danañ ko vainc gis nga dama koy faral di citer parce que xëj na moom laa xam te moo amit ci yeneen kër diine yi mais nag nit ki li nga xam rek nga mën a nga mën a wax dama gis tey xoolal mburi di nit ñuy dunde boo demee màggalu Tuuba xooluñu kër goo dal kër goo dalul foo dem lekk foo dem naan te xoolal ni leen ko yàlla di yombalale parce que dafa da luy dimbal doomu aadama man kon jàpp naa ne tey sous développement bi ñu nekk yëpp billaay wallaay daa lu ñu bàyyi dem laali lu ñu moomul loolu dong nga ñu dal parce que tey dimbale wante dafay tumuranke gis sa moroomu doomu aadama mu nekk ci jafe-jafe nga dimbali ko wala ñun ñu mun a ànd ci ngor kenn ku nekk yor sa ngoru bopp warante bañ a am wurujante bañ am naxante bañ am ñu jàpp ne ñun ñi dañoo war a ànd yàlla tax Babacar mii dërëm bii ma yor ëppalee ko ko war naa mën a xaaj dërëm bi ci digg bi mu bokk ci parce que loxoom dafa jotul gannaaw loolu defe naa ne buñ ko doon def lu bari dana set mais nag euh, Sénégal li benn li ñuy faral di wax rek. xol yi moo egg fenn fi mais nii ngeen def nii model la kon man su ma ko su su fekkee loolu dafa ñëw ngeen yàlla suñ borom boole ñu ngeen ñëw jël ma def ma président d'honneur rawax ci dolli ngeen téye Babacar mais wax dëgg yàlla lu ma ci man danaa ko ci def lu ma ci deful daal lu lu ma ci lu ngeen lu ngeen ci yaakaar te defu defuma ca mu toll foofu wala man ma am ci yéene te eggul foofu jàpp leen ne sama loxo fa eggut mais waa ilaa moom danaa ci def danaa leen jàppale waaw yal na yàlla suñu borom gën ñoo dolli sutura ñuy ñaan yàlla daje bi ñu fi dajee déwén yal nañu fi waat te bu ñu fiy dajewaat lépp lu ñu mébétoon ñun xalaatoon ko bëggoon ko yal nañ ko yàlla suñu borom defal ba mu raw suñu njort Babacar yow ñu ngi lay ñaanal yal na bu la yàlla rusloo it ci kanamu ñi parce que yan bu diis la <laughs> cest à lu mat deux cent personnes taxaw ne yow yaa ñu neex kooku kuñ ko xoratoo nelaw loolu moom dama lay wax ne la yan bu diis a diis la mais nag am nañ ci yàqin parce que bon euh, xam nañ la ñoo dëkk bu baax c'est-à-dire loolu bu ñëwee tey ba dal sa kaw <laughs> c'est parce que sa liggéey la sa ak sa liggéeyu ndey ak sa ñaanu waajur mais it sa liggéeyu bopp la parce que fii ku deful dara doo am dara loolu moom nay nay leer moom ku fi deful dara doo fi am dara coow lee fi bari rek doo fi am dara vraiment sant naa leen bu baax gërëm naa leen di ñaan yàlla suñu borom dolli ñu jàmm bu baax. parce que du mën a fa mu borosé làmb defe naa ne xam nga ne Vox Arena di fi ma nekk groupe de presse la Equivox du moins label bi mooy Vox Arena tëgg na benn làmb le 9 juin. maam euh, Lamine Garga 2 waaye drapeau bu mag bi drapeau docteur Macoumba Diouf la muy Tyson 2 ak franc docteur Macoumba Diouf xam nga ko bés boobu tamit loo ci wax parce que rendez-vous boobu tamit xaar nañ la ci ndax docteur yàlla dafa def muy sama xarit wax dëgg yàlla te itam damay wax ak moom souvent mu may wax ci yow wax ju ma neex ma Macoumba Diouf meeru Lat Mbengue bésam boobu le 9 juin boobu. waaw euh, docteur Macoumba maa ngi koy nuyu passage euh, di ko delloo njukkal di ko sargal également ci bés boobu nga xam ne askanu làmb na ko ko muy lu rëy mais damay wax ne tolloo na ak nit parce que docteur Macoumba euh, as gor la nit ku nangoo liggéey la mais également. nit ku am xam-xam la boo xam ne nii naw nañ ko ci réew mi moo tax gis nga président de la république li mu ko dénk ci réew mi man ak moom it ñu bokk di liggéeyal président de la république vraiment kon bu ngeen ko tudd bu ñu ko tuddee tey édition làmb mel na ni tey ñun ñëpp lañ ko tuddee ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw président de la république di ko jàppale kon dañ ko ci sargal bu baax am nañu yéene it wax dëgg yàlla bu ñu ko yàlla mayee donte man yàlla damaa nattoo xaw ma lan la mais làmb pour ma jóg dem ci moom waaw loolu moom yàlla dama ko nattoo mais daal ñaanal ma gars yi ñaanal ma aussi ah ma mën a yiweeku ba mën a ñëw ci mais mais mais mais Babacar mënu ma wax ci làmb bu weesoo xëj na drapeau docteur Macoumba mënu ma wax ci làmb te lancé wu ma encore une fois de plus un appel ci ñëpp ñi yëngatu ci wàllu làmb wax dëgg yàlla làmb gis ngeen Covid bi bi làmb amatul dafa mel ni réew mi dafa feebar ñëpp yëg ko kon tey bu ñu demee ba yàlla suñu borom def autorité yi ut ay solution intermédiaire làmb ji dooraat wax dëgg yàlla li xewoon keroog ci combat bi passé kenn mënu ko rafetlu ci réew mi kooku moom wax dëgg yàlla yow yàgg ngaa xeex violence dafe naa ne kuréel njëkk yi nga njëkk a bokk ci làmb lutte contre la violence la doo ko rafetlu sa morom du ko rafetlu kon ñuy indi violence ci làmb ji nañu xam ne ñu ngi xañ seen bopp seen cosaan mais ñu ngi xañ ñeneen seen teraanga amul njëriñ arène nationale boobu nga xam ne askanu làmb da koo yàgg di bëgg mënuñu ko am yàlla suñu borom jaarale ko ci loxoy président Macky Sall muy loo xam ne ni tey boo doon wër Afrique de l'Ouest doo ko gis vraiment na ñu ko sàmm parce que nit ki mën ngaa mer émotion aussi mën nga ko am parce que ñaara am ki kontaan ba kontaante mu ëpp mu explosé ak ki mer ba meram ëpp ko doole mu explosé mais bu mu ci mun di doon rek na nga am maitrise en soi xam ne kat mer mi dina jeex te après di nga toogaat di yedd sa bopp man defe naa ne kas yi ñu gisoon ci làmb ji fan yi ñu génn amul njëriñ na ñu ko moytu vraiment ñu def lépp ci fair play et ñu xam ne làmb cosaanu Sénégal la mbër mii daan ak mbër mi ñu daan yëpp Sénégal la su fekkee làmb ji am na réussite Sénégal moo am réussite mais bu amee échec Sénégal yëpp moo am échec te ay nit a ciy suturloo tey jii bu ñu gisee tey ñu champion yi fi nekk ñeewuñu kenn kon làmb <laughs> li ñuy wax la lutte nourrit son homme kon bu ñu ko fowee supporters yi aussi làmb da leen di dundal bu leen dundalut ci xaalis da leen di dundal ci bégte parce que plaisir ci la bokk donc kon vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal également Equivox euh, ci liggéey bi muy liggéey ci mbirum làmb yal na yàlla suñu borom gën leen a jëmale ca kanam ba lépp lu ngeen ci séentu vraiment ngeen gis ko ci yow it yàlla suñu borom may la ci promotion bu mucc ayib parce que tu fais la fierté de toute une communauté dama koy faral di wax ñun Ndondol am nañu mbégte bu baax suñu la gisee ci plateau yi Euh, di la parce que nag euh, xëj na yàggoo ci trop trop trop par rapport ak ñenn ñi. waaye mel na ni yàgg nga ci lool xëj na li may wax xam nañ xam nañ ko xam nga ñun làmb bu ñu ko daan déglu ñu yàgg lañ ñuy wax mais tey ji bu ñu nee Babacar Diome am na ñu xëj na ñoo xam ne ni ñu ngi koy soog a gis waaye ñun dañuy jàpp ne ñun bu ñu lay gis day mel ni koo koo xam ne def na 40 ans ci làmb ji loolu may ak suñu borom la yàlla na ko yàlla suñu borom yokk. ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp vraiment di am mbégte bu baax a baax di leen baal di leen balu àq